xam ni mhm. vraiment man gëm naa ne mooy idée yi nga xam ne bu ci Sénégal tënkoo mhm. mën nañu avancer mën nañu avancer sur le plan développement mhm. sur le plan judiciaire et cetera man gis naa ni mboolem politicien bu ne fii Sénégal di politique moom Sonko mooy programme bi nga xam ne vraiment bëgg sam réew ji la tàmbalee ci la yam waaw looloo tax nag ma def may def tous les sacrifices tous les sacrifices pour moom mu jël réew mi pour état moom projet bi mu indi man ma gis ci sama bopp gis bopp nag weesu ma ak ak maanaam nit nga bàyyee leen ko dafa mës nekk sama combat ci lépp. Mm. te booba awma gisuma kenn koo xam ni mën naa cee ji wékku ci moom ngeen mu doxal procès boobu yi. Mm-hmm. waaye nag dem naa ba yàlla suturaal ma ci sama dund ma gis ko mel ni moom koo xam ni mën na jëmmal procès bi. Mm-hmm. ah ma jël sama combat ak sama pexe lépp jooyal ko ci moom mooy li ba ma wax naan daal. Mm-hmm. alhamdulilahi lesi amad dayade ataaraayatu asarajuli lesi maa ngi sant yàlla mi nga xam ne bàyyi na ma dund. ma bokk ci ñi nga xam ne gis naa ñi ma doon ñaan yàlla daje ak ñoom ci dund mu ñu ak maandu ñor ñu dëgg ñor loolu moo waral xam naa ñu bari di ma jox adresse ci moom waaye effectivement. Mm-hmm. daal du ma Pastef mais Sonko laa. mais nit ñi mm. daal ñu ngi lay ñu ngi lay adressé Pastef. Ah, ah, waaw waaw suñu mot de rek ne Pastef la bokk. dëgg la waaw moom kay nit ñi dañ maa forcé ne ma force forcé ko am na ñoo xam ne dañuy waxtaan sëñ bi nangul rek. nangul mbaa ngay def moom. Mm-hmm. ku bokk ci loolu rek damay wax ne xalaat la yoo xam ne jëmmi sénégalais ñoo war a bàyyi di xalaate noonu. Mm-hmm. maanaam nit ki chaque jour rek moom bu fekkee ne gis nga ko mu am benn position taxaw ci. Mm-hmm. nga ne bokk caa tax mu taxaw ci maama dem. waaw yow en tant que mën nga am sa benn xaritu chrétien. Mm-hmm. dara xew mu mu invité la. dëgg la mën nga am mu la Pâques fin d'année ci yenn événement. Mm-hmm. parce que da ngay dem ndax seq ngeen ko. dëgg la te doo chrétien chrétien bi aussi jullit bi mën na màggal Tuubaa ñu ngi dem te nag ñoom danañ ñëw. te duñ ay jullit. Masaalikul Jinaan ñëwoon nañ. Mhm. def ay discours yi kanam sëñ Muntaxa. c'est vrai yoo xam ne ñun ñoo ngi wax suñ bokk chrétien ñu def mhm. loolu réew moo koy laaj parfois. Mhm. réew soxla ay taxawaay aajewul sax ngay adhéré wala ngay bokk wala ngay lu laaj daal voilà. dëgg la jërëjëf sëriñ bi nag moo bindoo noonu euh, ndax sooy défendre yenn propos yi rek ñu bëri daal di euh, féetale ci wàllu woowu. waral nag ñëpp naan la sëñ Moura Mbacke Euh, fee nga bokk ca Pastef waaye hmm. nag dañuy rek daal di tàmbali waxtaan bi sëriñ bi hmm. ndax tamit euh, laataa ñi dugg sax ñu dugg ci li nga xamante mooy màggal Touba Mbacke Ball ku ne xam na ni euh, Touba nga dëkk hmm, tey tamit màggal gi ñëw na macha allah tey itam gis nañu également màggal gi jàmm ci ñi ci wax di ko ci xëcc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 jàpp naa ne ñu ñuy def li naan wax soxla dàq sa ginaar waxaane sa soxla mm. ñu wax ko ne kat suñu àndandoo ba ay la yëwén bañ daan àndal di ñëw fii ñëwut wala gisu ko ma nga dégg daan mbay waaykat bi daan mbay doon na mbay daana euh, sëñ Babacar si mm-hmm. koo mas a àndal ñëw ci moom boo dellu si waatee bu àndul ak moom mu laaj la ko man damaa gis na loolu men mm-hmm. axlaaqil men axlaaqil xulamaa il akaabir ci jikko borom xam-xam yu mag yi mm-hmm. ñoom buñ la daan gis ngay ànd ak nit boo seet boo ñëwee te àndoog moom daañu la laaj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 te ñu bari war nañ cee bàyyi xel war nañ ci war nañ ko éviter gis nga mm-hmm. sëñ Muntaxa mm-hmm. kilifa la koo xam ne am nag am am am nay njaboot am ay set am lépp comme ni ku ñëpp amee mm-hmm. waaye ki mu doon nag actuellement dafa doonut ak dafa bokkut ak ki ma doon ak keneen doon maanaam yaakaari mbooloo la yaakaari adduna la yaakaari itam benn ay ay ngëm-ngëm la ak principe c'est parce que yaakaar nag lu ñëpp bokk la lu ñëpp bokk nag ku ci gis lu la neexut da am droit ne yii nii bu ko defati bu leen ko defati sëñ bi ndax sëñ bi fi mu toog moom di ñaan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 ñu daal di koy filmer par téléphone nee nañ nag autorisation sëriñ bi lañ ci am. man loolu daa man loolu gaw ma ko xam tax gaw ma ko. Mhm. mooy abib si bi doon wax ma ma nga fa woon ba àndoon demande boobu mhm. abib si xam ne ngi koy jël vidéo mu mu doon lu ñuy nëbb xam nga man ma ñëw ba sa plateau bi waxuma fi lu ñuy nëbb wane ma fi lu ñuy nëbb mhm. léegi nan la abib si mën a nekk ci barab boo ñoom ñoo demandé ay ay vidéo jógee vidéo bu tey rek a bësu ma ne abib si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 am na nafsa bin nafsi wal xayna bil xayna wal anfa bil hmm. ko publier ko te loolu nekkul luñ luñ prévoir luñ prévoir nag bëgg wan nit ñi ne sëñ wax nangam ak nangam Ousmane Sonko hmm. léegi nag après kon Ousmane Sonko bu dee ne day ànd ak nit te wóoruwu leen lu muy ànd ak bu dee day ànd ak nit itam te nit ñi di jug ngir moom ku dégg ba cëg te wóoruwu leen loolu nan la mën a demee mun loolu nekk hmm. nañ wax lu mën a dugg ci bopp doomu aadama nag man xamoon naa gendarme bu demee du yegg yegg na nag mais la ko tax yegg mooy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 muy RTS atam yi mujj loolu lañ wax mm-hmm. te loolu ñoom sa sàmm nañ ko bénéfice bi jóge mm-hmm. loolu mooy ormal kilifa xalifa laayan laayeen bi yàlla na yàlla yokk leeram yokk yërmandeem mm-hmm. defe naa ne lu ñoom itam eggoon nañ foofu ci seen kilifa gi boo ko teel génneeti xam nga mais même suñ mun taxaa àggugul foofu waaye am na ci yooyu nit waru ko ko génneel parce yooyu dafa nekk yu secret te Habib si noonu la ko gisee noonu la ko bëggee woon léegi nag bi mu